ndax da nga ko yëral. ah non non non mais mais mais oustaz xaaral ma bëgg fësal pour nga mënuloo bind si nit. soit deux choses moo mën a am. mooy nga am sympathie wala nga am antipathie. si nit ki par exemple nga bañ ko après nga bind nga bind maara day taale si moom nga am sympathie bu fekkee ne yow tu es nga essayer jéem a la vérité Euh, wax li nga xamante moo am pour contre mhm. j'ai fait des trucs des choses yi nga xamante ni c'est positif j'ai dit des choses yi nga xamante ni c'est négatif yoo xamante ni moom su ko liroon du si d'accord mais man noonu laa ko gisee xam nga et loolu Euh, c'est pour bind c'est pour c'est pas pour moi c'est pas pour vous c'est pour des générations par exemple lii ni yow fekkee ko man am na yoo xamante bon am na yoo xamante ne fekkee ko parce que dans les années euh, peut-être 60 70 bon peut-être maîtriser ko loolu moo tax comme que il fallait une bonne doc il fallait une documentation pour pour parvenir bind ko mais ku ko lire tey koo xamante ni c'est un contemporain il peut se dire que bon ce livre là mais d'ici cinquante ans ça raconte l'histoire politique du Sénégal. par mhm. mooy les événements récents yi nga xam moo fi mujjee am donc pour pour eux moom ñooñu moo tax muy bind pour yeneen génération yi nga xam cinquante ans bu ñu ko lire dinañu xam il a cinquante ans en 2012 wala en 2022 lii moo xewoon Sénégal. d'accord alors man sama dernière question. Oustaz Balko